boo bañee sa bakkan gañe la nanga nga baril fàttaliku dee ndax nee nañu ab jaam kem na mu barile fàttaliku dee noonu lay baree ay topp yàlla kem na mu sàggane fàttaliku dee di ko fàtte lu bare bari noona lay bare ay mooy yàlla moo tax addis ba ne dee leen siyaare armeel yi ndax loolu leen fàttali alaxira am na ku ñuy wax arrabi daa gasan ci këram bàmmeel boo xam ne su gisee ba kanam tàyyeel rek mu dugg ca bàmmeel ba mel ne ku yeewu boppam moo gasal bàmmeel bi boppam ci biir këram te moo ci dugal boppam yeew boppam bu tëddee ba mu yàgg nag bu tëddee ba mu yàgg nag mu ne ay yàlla may leen ma ma delluwaat àdduna def lu baax bala maa ñëwaat fii su waxee loolu nag door a waxanteeg bakkan bi nag jaaji ko ne ko ah danga nga mas a àgg fii dëgg-dëgg nag boo xam ne soo nee may leen ma jóg defi lu baax deesu la ko may kon nag tey jii nga xam ne loolu weesagut farlu ci def lu baax loolu balaa wees ba tey war nay fàttaliku li ñu wax ne moom la dee di ñëwee nee nañu ku ab àppam mat dee day def jaseet ci kanamam ami melowu ragloo ragloo waa ji dana ko laaj ne ko waaw yaay kan ak loo bëgg dee dana tontu ne ko man dey maay dee maa lay génne fii ci àdduna yóbbu la alaxira say doom soppi ko ay jirim sa soxna mbaa say soxna ñàkk jëkkër sa alal say dono séddoo ko bu la neexee bu la naqaree su fekkee lu baax nga daan def nag di ca góorgóorlu lu baax rek ngay gis su dee safaan ba it lu waay def rek lañ koy fay jëmm ji ab diggam agsi nag bu déggee dee wax loolu day féléti wëlbatiku ndax du bëgg a gisati jëmmi dee ak noonu mu ragloo waaye nag fu mu wëlbatiku rek itam jëmmi dee rek lay gis fu mu xool rekk melow dee wu rek lu wow rek lay gis kon ne ngir bakkanam bañ koo gañe daal nay baril di fàttaliku ni ko dee mën a bette ak bu dikkee na nga xam ne moom lay mettee ndax nee nañu xarte li nga xam ni moom la dee ame nga xam ne bu lépp lu bokk ci yaramu nit ki muy yàpp mba deret mbaa sëdit dana xar xarte loo xam ne su dee mënoon a am ay yoon yoon yoon kon jëmm ji day dee ay dee yu bare bare bare bari waaye nag yàlla dogal dee benn yoon rek lay ame noonu ba yonante bi wax ci addis ba ne law anna xataratan min al mawti waqaxat xalaa jibaali dunia la daabat ak toq rekk ci dee bu dalan ci doj yi àdduna yi doj yi dañuy ruuj dañuy seey boole ca nag ñu wan ko lépp lu masa wees ci bundam muy jàkkaarloog moom bu gisee lu masa wax mbaa lu mës a def tamuy lu baax day ne xet lool rafet lool mu bëgg ca lool bu gisee nag lu mës a def ci lu aay moom na muy ñànge ak na muy naqaree xet bañ koo gisati moo koy gënal lu ne boole ci it gis nga muy gis malaaka nga xam ne jinn rek bu ko nit gisoon mën naa jommi daal di daanu dee rawante na kon nag bu jàkkaarlook malaaka am na ku ne nag ni gën ci fàttaliku dee mooy da ngay fàttaliku sa moroom yi nga xam ne yéen a fi bokkoon nekk ñu jiitu la nga gis nañ mujje nekk ci biir suuf seen alal ñu seddoo ko seeni soxna waaj séyiwaat te wóor ne noonu ñu mujje rek yow itam lu yàgg-yàgg noonu ngay mujje ku ànd ak xelam mën a xalaat ku ne rek mën nay seet koo xam ne ñoo tolloo woon ay at tolloo ay mbir na mu génne àdduna ak nañu ko def te wër ko ne rek moom itam noonu rek lañ koy def fa kooku mujj rek lay mujj ñëw na it ci addis yonante bi ne sama boroom day wax ne su ma naree jéggal sama jaam nga xam ne bu ñëwee ci bàmmeel dafa fekk wenn jamono yi muy dund daa koy teg xeeti jàngoro ak ñàkk ak jafe-jafe ñu dund ndax rekk bàkkaar yi nga xam ne moom la jot a def wàcc ko su àppam ak seen ak te bàkkaar ya des damay mettil deega lool lool ba nga xamee ne bu xësee faatu rek nopp lu benn yoon du fekk ci bàmmeelam wenn tiis waaye nag bu dee saa jaam boo xam ne naruma koo jéggal moom lu mu def ci lu baax rek ma fay ko ko ci àdduna defal ko wéeru yaram ak mbégte ak wërsëgu yaatu ak xeeti pal ak daraja yu demee noonu su fekkee ne nag defal naa ko yooyu yépp waaye taxut la defan ci lu baax jeex ma woyefal ak faatoom ba nga xamee ne su ñëwee rek fekk fi ñaawteefam yépp yëpp te fekk la mu ci lu baax lépp fay naa ko ci àdduna mu fekk fi nag ñaawteefi kese kese wa fi lxadis yaqulu llahu taala laa yaxruju xabdun min xibaadi min addunia wa ana uridu an axfira lah illa qtasastu bi kulli sayiatin hamilaha bi suqumin aw diqin fi lmaisha wa in baqiya alayhi shay'un min sayiatih shaddadtu alayhi sakarati almawt xataa yalqaanii wala sayiata alayhi wa izati wa jalaali laa uxriju xabdan min xibaadi min addunia wa ana uridu an laa axfira lah illaa fatantuhu bi kulli xasanatin xamilaha bi sixatin fi jasadih aw faraxin yusiibuh aw saatin fi risqih fa in baqiya min xasanaatihi shay xawantu alayhi sakaraati almawt xatta yalqaani wala xasa ka